waaw aousubillahi bisimillahi inna waliyallah aousubillahi mina sataani rajim bisimillahi rahmaani rahim gannaaw ba nu sante buur bi subhanahu wa taala di jullu ci yonentam tedd bi sallallahu alayhi wa di sant sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ te ànd ku gis jotaay bi tey ni mu bindoo nga xam ne tey bisu ñu ngi ci bisu asura nga xam ne bisu mbégte la di bisub siyaar ñu war a àndal nag waa fédération xidmatul xaddim ñu war a jëm ci sang bu tedd bi muy Seydina mu Karram Seydi Aydara Mbàkke ibnu Sëriñ Daam Faati mu maam Codé Ibrahim Daamal Daaru ñu xam liggéey bi muy liggéey ci àdduna bi di ko liggéeyal maam ju baax ji maam Codé Ibra Faati ci ëttëb bi nga xamante ni kenn naataablewul ay taxawaayam soo ko def ñu taxawoo rek ak ay jëwriñam ñoo xam ne ni ci biir liggéey bi Sëriñ Alsaan mu am ay kàddu yu mu baaxee ndax tey waa Kees gépp diggante Madina Fall ngeen nekk ñi nga xamante ne ñi ngi ci zone yëpp tey fu képp ku njaboote rek mi ngi ànd ñi ngi war a ànd ak ñoom tey ci siyaar bi ak lancement bi mu lancé ci appel di woo katu yàlla yëpp nga xam ne bëgg na ko ànd ak ñoom ci tey nga xam ne bisu mbégte la bisu siyaar la bisu yokkute la ndax bu ne yomal asura yomal bu saara kon alsaan ñu ngi lay siyaar bu wér-wér ah delloo siyaar sëñ As ñu ngi lay nuy di la siyaar bu baax a baax a baax di sunu yaakaar tey ak ëllëg ki nga xamante ne mooy Seydina Moukaramou ay Alioune Aïdara Mbacke mi nga xamante ni sël la si maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daaru di ki nga xamante ne leer la muy doom si ki nga xamante ne mooy sëñ Daam Fatim Mbacke dëkk ba fi nga xamante ne mooy Daaru Muxti moom la ñu nekk nii di waajal nii di ko dem di ziar ji fële ca Géejawaay bis bi nga xamante ne mooy bisum Ashura muy euh, bu ñu euh, tam xaritee ba sa ëllëg sa ñu ànd ak fédération xidmatul xadim bi nga xamante ne moo ngi biir Thiès rawatina daayira bi nga xamante ne moom la sëñ bi jox euh, waa Thiès muy misbaalu arwaax ñu fas yéene kaa dem ziyaara ji si li nga xamante ne ak taalibe rek moo tax ñu dajale mbooloo gi nii ñu fas yéene dem ba Dakar ngir jaar ji. waaw comme ni nga ko déggee ni mu ko waxee tey waa fédération bi ñoo àndandoo ñu nekk kees gi yëpp. fas yéene ànd ak ànd ak njaboot gi dem woote wuy wuy ci woote sëriñ bi tey lan ngeen yëg ci lan ngeen ci bisu tey bi daal lan ngeen ci gën a yëg. waa alhamdulilah ñun daal mbégte rek lañ ciy yëg mbégte rek ndaxte suñu xool sedd na guy ndaxte lii dafa jafe si li nga xam ne mooy àdduna. jafe na si li nga xam ne mooy jamono ji nga xamante ne moom lañ toll nii. ndaxte jamono ji rëb na lool maanaam pàq gi tamit bëri na lool waaye ay jeunes yi nga xamante ne dañoo mobiliser wu. tënku si li nga xamante ne mooy siraatal mustaxim tënku si li nga xamante ne moom la Serigne Touba woote muy liggéey Serigne Touba suñ Touba sax da koy faral di wax Touba li habdin muridin saadixin loohu moo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyeet ñun si loolu lañ tënku ngir li nga xamante ne mooy li nga xam mooy jëmale lislaam ci kanam te gisuñu si dara sentiruñu si dara lu dul ak mbétte rek ak euh, li nga xamante ne mooy xol bi sedd guy. wax fa yàlla. kon lii la leen indiloon ci tàmbali bi. ndax départ bi fii kees la. xew mi ngi amee fële Kër Massar. sëriñ bi woo nag ñëpp njaboot gi waaye féete ci biir Sénégal rek ñu war koo ànd sëriñ bi tey nga xam ne bisu mbégte la. bisu yokkute la bisu siyaar la. di ñaanal Seydina mu karam sunu borom yàggal fi loolu tam ànd ak wér. kon waa RTT TV ñu ànd ak euh, waa bi. fu seen ànd ñoom euh, ci jotaay jotaayu bi yëpp kon ba ci kanam rek ak yeneen i jotaay ak yeneen i mbokki taalibe fële ca Ndakaaru incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. Ndakaar ànd ak fédération bi ak télé bi RTT TV bu ko defee ñu ngi ànd ak mbokki taalibe yëpp itam ñu war a fas yéene dox ci sëñ bu tedd bi di ay Aydara Mbacke ibnu Serigne Dame Fati mu maam Cerno Ibrahima Ndamal Daaru ci bis bu tedd bi di bisu. yomal asura kon bu ko defee ñu taxaw ak sunu baay bu baax ànd ak fédération bi ànd ak taalibi si ñaari yi nekk Kees yëpp ñu ñëw ndakaaru gi ci bis bu tedd bi ñu fas yéene ko ànd ak mbokki taalibi nekk Dakar gi yëpp siyaare sëriñ bi tey bis bi lan la def ci yow. jërëjëf man daal kontaan rek laa def kontaan xam nga kontaan boo xam ne li a yëpp doo ko mën a wax ndax man sëñ bi damaa defal loo xam ne defalu ko kenn ki ma ko tuddee ci daara ji lay jàngal alxuraan ba wàcc sëñ bi sëpp kon loolu mbégte la ci man bu dee def siyaar man naa war a nekk ca kanam ndax kontaan. dëgg la kon ni ko sunu góor gu baax ki waxee rek ne Baye Ngathie mu Serigne Aidara Mbacké ànd ak taaliba Serigne Aidara yëpp moom mu yàggal Serigne bi lool. bokk na sëriñ bi rek li sëriñ bi rek am ci ak taalibe kon bu ko defee dañuy ànd ak waa fédération bi rek ñuy taxaw jëwrin gi nii di sëriñ xaadim mi nga xamante ni moom moo jiite liggéey bi fële ca kees sëriñ xaadim ñu ngi lay siyaar. ñu ngi siyaar bu baax jëriñ aas. bis bi ak bis bi lan la def ci yow ak mbokki taalibe yi. waa ak sant rek ak sant rek ndax ab ziar moom sëriñ Tuubaa da koo wax ci taalibe bu nekk ndax ab taalibe bu nekk war na muy ziare rawatina bis mel nii occasion la Xidmatul Xadim bu Thiès yëpp àndandoo ñëw siyaare ji suñu yaakaar tey ëllëg Seydina mu karamu Cheikh Aïdara Mbacké di ñaan suñu borom mu nangu ñu ziar bi parce que borom daaru kon bu ko defee jëriñ jaa ngi noonu di Serigne Khadim mbokki taaliba yaa ngi nii jógee kees nag àndandoo ñun ñëpp wax dëgg yàlla fas yéenee àgg fële ca kër ga fas yéenee dox fële jëm ci Serigne bu tedd bi Serigne Aïdara rek Mbàkke di ko ñaanal sunu borom yaa ko fi lool te ma ànd ak wér. siyaare yaa ka jagoo. siyaare nanu la siyaare nanu la Mbàkke baay mu karamo siyaare yaa ko jagoo. siyaare nanu la siyaare mu karamo siyaare yaa ko jago waaw waaw bay mu karamo ndeysaan siyaare yaa ko jago barke bay mu karamo siyaare yaa ko jago taalibe gën laa bëgg gën a doon jàmbaar waaw bu ñu sañoon daal lu ñu def ci yow rek Mbàkke doy ndax man xam naa ni ngay def ci ñun sant nañ baax Mbàkke jërëjëf yàgg bi loolu tëwé nu may nu fekkeewaat ko te di ko ñaanaat mu may nu fekkee ko ay at yu bari te at mu ñëw yàlla fulal nu sunu man-man ak sunu kattan ak wér gi ba taxawaay yu ñu am suñu digg ak moom ci wàllu ak jaamu akuk topp ñu def ko na mu ko bëggee yàlla dimbali nu. yàlla dimbali nu. defal nu jàmm. ci àdduna. ak àllaaxira ak àllaaxira. yàlla barkeel njaboot gi. yàlla barkeel yi. barkel yëngutu yi. barkeel seen jéego yi. barkeel seen jéego yi. ngeen bàyyi ko ba Thiès. ngeen bàyyi ko ba ngir ñëw teew fii. ngir ñëw teew fii. yàlla bu yàlla neenal yite jooju. yàlla na leen ko yàlla fay. yàlla na leen ko yàlla fay. te defal nu ngërëmal sëriñ bi. te defal nu ngërëmul sëriñ bi. nee na bu nu amee ngërëmal sëriñ bi. am ngërëmal yàlla. am ngërëmul yàlla. boo amee ngërëmal yàlla. boo amee ngërëmul yàlla. am nga ngërëmal sëriñ bi. am nga ngërëmul sëriñ bi. nee na nee na lu neex yàlla neex na ko. sëriñ bi nee na lu neex yàlla neex na ko. nee na lu ko neex neex na yàlla. te lu ko neexit neex na yàlla. wama abaahu. wama waman abahu waman abahu wama abahu yaa baaxu nee na lu ko neex rek neex na ko nee na la sëriñ bi wax ci dëggam ak boromam nee na kon nag bis bi ngeen ñëw nee na nga xam ne ci tawfeex ju ne nee na nga xam ne yàlla wone na ci tawfeex ju ne ci diggam ak gaayam yi ci diggam ak gaayam yi wone na ci nee na na ci barke bu ne. tiyaaba ju ne feeñ na ci. tiyaaba ju ne feeñ na ci. bari na ñu mu yónni jamono. bari na ñu mu yónni jamono. bis bii mooy seen bésu mucc. nee na bis bii mooy seen bésu mucc. bari na ñu yónni jamono. bari na ñu yónni jamono. bis bii moom ci leen ganee jamono. bis bii ci leen ganee jamono. kon li nekk ci bis bi ci ay xéewal. nee na kon li nekk ci bis bi ci ay xéewal. ci ñim ci musal. ci ay yonentam. ci ay yonentam. ci góor yàlla. ak i góor yàlla. di bis boo xam ne. di bis boo xam ne. yonent bi wooroon na fukkeelu fan bi. yonent bi wooroon na fukkeelu fan bi. amoon yéene. amoon yéene. bu ko fi fekkaatoon. rakkaatoon. mu wóor juróom-ñeenteel ba. mu wóor juróom-ñeenteel ba. boole koog fukkeel bi. boole koog fukkeel bi. kon daal lépp loo xam ne barke la. nee na kon lépp loo xam ne barke la. ak tawféex. ak tawféex. ak ndimbalal yàlla. ak ndimbalal yàlla. yàlla na nu ko yàlla defal. yàlla na nu ko yàlla defal. jaboot gi ma jaboote. nee na jaboot gi mu jaboote. ci aw góor. ci aw góor. ak ak ak i bokki soxna. ak i bokki soxna. ñu bàyyi ko fu ne. ñu bàyyi ko fu ne. rawatina njabootu Cees gi. rawatina njabootu Cees gi. ànd ak seen seen ànd ak seen ay jëwriñ. ak seen bokki taalibe. ak seen i bokki taalibe. def nii nu def. def nii def. ñëw di di gaaral liggéey bi. ñëw di ko gaaral liggéey bi. maa ngi koy wan yàlla. nee na moo ngi koy wan yàlla. ginnaaw ginnaaw ba nu ko wanee ndawam yi. ginnaaw ba nu ko wanee ndawam yi. muy Serigne Touba. muy Serigne Touba. ak Cerno. di ko gaaral yonent bi. di ko gaaral yonent bi. ak sahaaba yi. ak gaa yu ak gaa yu baax yi. koy gaaral sun borom. noo gaaral sun borom. yàlla bu seytaane am wàll ci liggéey bi. yàlla bu seytaane am wàll ci liggéey bi amin. am yàlla amin yàlla bu ci dara yàqu yàlla bu ci dara yàqu amin yàlla bu ci dara mejji yàlla bu ci dara mejji na ngeen ko téye nii rek nee na na ngeen ko téye nii rek ba ci kanamu sëriñ bi ba ci kanamu sëriñ bi mu téye ko noonu ba ci kanamu boromam ba ci kanamu boromam nit ku nekk nit ku nekk ndab la ndab la ndab lu ne ndab lu ne lañ ca def lañ ca def na farlu na farlu ba bum danqaamtalu ba bum danqaamtalu ba lañ def ca ndab la di turu ba lañ def ca ndab la di turu mooy kenn ku nekk mooy kenn ku nekk li nga yor ci aw yiw ak mbaax ak mbaax nan ko korkor korkoral na nga ko korkoral na nga ko sàmm ba bu ci seytaane am wàll ànd ak ndimbalul yàlla noo ngi leen koy ñaanal yàlla amin ci at mu bees mi ak yokku ak ku yëkkatiku ak ku mucc ak jàmm ak i xéewal yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal nee na yàlla na yàlla barkeel leen sunu murit yàlla bu ko dara yàq yàlla bu ko dara yàq ko yàlla na ko yàlla sunu lislaam ak sunu diine ji amuñu lu dul moom yàlla bu ko dara yàq asalaamaaleykum wa rahmatulah nañ maa sa loxo yi nee na mi ngi gërëm na jëwrin xaadim bu baax waaye xam naa ne bu doon menn moom rek du dem nee na xam na ne waaye bu doon menn moom rek du dem kon maa ngi gërëm jëwrin yi mu yëpp nee na kon moo ngi gërëm jëwrin yi yëpp mi mel nii nee na loolu moo tax mbir mi mel nii kon mbooloo du doole mooy <laughs> waaye mbooloo mu booloo mooy doole. nee na kon na ngeen gën a dolli seenug booloo. ak seenug benno jur yi ngeen na ak way jur yi ngeen àndal ci siyaar bi. boo ci tuddee soxna Kiné. boo ci tuddee soxna Kiné. yóbbaale na ñëpp. nee na yóbbaale na ñëpp. boo tuddee soxna Marème. nee na koo ci tudd rek ci ñoom. ki ñëw. ki ñëw. ñëwal na ki ñëwut. ki ñëwul tamit ñi ñëw rek ko teewal. ñëwul tamit ñi ñëw rek ko teewal. kon koo ci tudd rek. yóbbaale nga ci gisam ñëpp. nee na kon jëwrin yëpp ñoo ngi leen di sant. nee rek a nii rek la jërë ngeen jëf ñu maasa tàllal loxo yi sëñ bi def ñaan góor yàlla yi dem jàpp ci sikar si yi buñ nappee nañ dem ci sikar si amin mbakk balla amin a ak seen bay bi ñu àndal nga xam moo indi siyaar bi ak seen wajur wi nga xam ne moom lañ àndal mu indi siyaar bi ndax xaadim mii bi mu doon tut tànk nee na xaadim mii bi muy tut tànk woy juróom di ma ko jébbal woy juróom di ma ko jébbal ci ngàcc mii la jaare nee na ci baay ci mii la jaare moom mii nee na moom mii bi may jàng Cees bi may jàng Cees sëriñ bi ma boole woon ak moom bi ma boole woon ak moom ma soxla weccet nee na bu ma masaan soxla weccet wala ma soxlay carnet moom mii mooy jël addiyam moom mii jox ma ma fàggu ji loolu ma fàggu ji bi fi sëriñ ko bi fi sëriñ bi bi bàyyi ko. mu ne ma yow moom sëriñ bi boole nañu lu muy dem. mu ne ma yow moom sëriñ boole nañu lu jiitu muy dem. daa di jaayante ak man. daa di jaayante ak kon sama nee na kon wëllëreem. ak wayjuru xaadim mi. ak wayjuru xaadim mi. kon seen jëwrin la. nee na kon seen jëwrin la. seen wayjur la jërë borom yomb na sol kay leer fa ëpp ci ndaw ñi dañoo bëgg jaamu yàlla dañoo bëgg di def ay zikir waaye nag amuñ koo xam ni moo leen orienté di leen teg ci yoon te sëriñ bi neewal na képp ku soobu yoonu yàlla te amoo ko lay orienté di la teg ci yoon nee na saytaane moo nekk sa sëriñ te saytaane bu nekkee sa sëriñ fa mu la yóbbu rek moo ci safaan ba ndax nit ki bu sooboo tur yàlla di ko zikir di ko tudd te amul sayxu mu rabbi boo xam ni boo koy teg ci yoon saytaane mooy ñëw tàkk ci seytaane moo ko orienté kon mënul ñàkk guide spirituel boo xam ni moo koy orienté sëriñ bi nag dafa wax ni faydu bi comme li sëriñ bi doon bind ci sëriñ bi lañ doon dégg mu ni xasidaam day taxaw taxawaayu seexul murabbi boo dikkee ci faydu bi da ngay dégg sëriñ bi bi day taxaw taxawaayu seexul bi comme li seexul murabbi di def ci yow boo ko taxoo boo taxoo faydu bi loolu lay def ci yow mooy day def di dindi ci yow di aar ba def la nit ki nga xam ni moom lañ soxla waaye nee na képp koo xam ni da ngay jàng li nga xam ni mooy faydu bi nee da ngay am maxfira mooy da nga am njéggal mhm. njéggal boobu nag dañuy wax ne mooy bidaaye ñi nga xam dañuy soobu yoonu yàlla boo sooboo yoonu yàlla jóge ci nelaw yi taxoog sa borom egsi ci nelaw yi yeewu ba yëg yàlla jige gi mu la jige ak yàlla nekk gi mu nekk ci lépp waaye mënoo ko yëg taxoo googu nga taxoo moom di nelaw boo tax faydu bi dalay yee indi la ci maxfira mooy njéggal googu ñu soxla mhm. njéggal googu nag li tax mu la ci yóbbu mooy nit ki bu gisee boppam day gis ni daa gis ni daa day gis ni tamit dafa bëri ay salté kon nag bu gisee dafa tax tilim ndax war na ci moom jaadu na mu jékki-jékki soobu ci salle bi nga xam ne ci lañ koy recevoir déedéet danaa jaaduwul ndax bu président doo recevoir da ba jekk doog a dem wuy président moo tax sëriñ bi li mu njëkk a tàmbalee yow rek mooy boo ko jàngee am maxfira am njéggal sa borom waaye boo ko jàngee nee na faaw nga am xabul ndax nit ki mën nay def istifaar waaye du am xabul mi ngi jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gamul xabul jaamu yàlla bu yàlla nangu nag boo ko bëggee nee na faaw da ngay nekk ci li nga xam ne mooy faydu bi waaye faydu bi daf lay womat di la yóbbu ci istiqaama istiqaama nag nitu yàlla yi nee nañ mooy karaama gi nga xam ni moo gën a màgg ci karaama yi ndax bépp karaama boo gis rek saytaane mën na koy jëfandikoo waaye istiqaama moom la saytaane amul istiqaama boobu nag boo taxaw li nga xam ne mooy faydu bi da nga koy am waaye da ngay am najaat minal kadari dunya mooy nëx nëx ak taq-taq yi nga xam ni mooy dox ci diggante jaam bi ak boromam jaam bi bu taxaw faydu bi da koy jële ci sikk googu ak taq googu yóbbu ko ci siraatul mustaqim siraatul mustaqim nag mooy yoon bi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon woo ñi nga xam ne ñoo ko doon topp bu la yóbboo ci siraatul mustaqim nag fale la yóbbu ci maarifatu billaahi mooy xam yàlla goo xam ne dootu am sikk sàkka ndax jaam bi fii ak amagul maarifatu billaahi mun a gut a jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér ndax boo seede ni maa ngi seede ni yàlla yàlla maa ngi seede ni yonent bi sallallahu yàllaa ko yónni dañoo wax ne seede mooy loo teg bët wala loo fekke kon yow li nga seede mooy da ngaa seede ci kaw seede ak boromam mooy da ngaa seede ci sahida la annahu laa ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi ci ñooñu te jaam bi dafa war a mën a dox nag ba yegg ci li mu gëm mooy nekku yàlla mu seede yàlla naka la nekkee fi wéetee te nekk fekk dara loolu nag li ku koy may mooy maarifatu billah maarifatu billah boobu nag ni muy def baam ko loolu la ko Ibn Abbas firee kon jaam bi balaa mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gi wér faaw ma maarifatu billah kon loolu dafa bokk ci njariñ yi nga xam ni faydu bi nga xam ni sëriñ bi daf koo def da koy def waaye faydu bi dafa bokk ci muy def mooy day yar nit ki ay cëram ba ñu ci jaamu yàlla day yar nit ki ay cëram ba sawar ci jaamu yàlla day yar nit ki ay cëram bay cëram nekk cër yoo xam ni cër yu yaru lay doon yoo xam ni ni yàlla bëgg ab jaam mel ko noonu lay mel ndax ki nga xam ni moo sol mbuumi mi di ruugi di dox ak moom dafa bëgg a sol mbu moo xam ni mbu mu set lay doon mbu moo xam ni du am benn taq-taq te nit ki jëmmam jii di cër yi comme ni nga xamee nit ki noonu lay solee mbubb sumi ko ci néegam bàyyi ko fa jëmmam jii daam ku ko sol di dox ki sol jëmm ji di dox nag dafa bëgg mu nekk jëmm joo xam ni jëmm ju set lay doon nekk jëmm joo xam ni jëmm ju laab lay doon te bu dee faydu bi ngay taxool sa jëmm jooju di sa mbumi daf koy fóot ba mu nekk mbu moo xam ni bu mu set lay doon ba koo gis xeemee mbu ma ngir ba koo jëfandikoo waaye day nekk di def li nga xam ni mooy taskiya mooy sellal sa bakkan taal te alxuraan neewoon na xad laa man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha ñi nga xam ne seen bakkan sell na nee na ñooñu ñoo texe waaye ñi nga xam ne seen bakkan dafa tax nee na ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo sooy nee na mooy ñi nga xam ne ñoo pert kon perte googu ak sooy gi boo ci bëggee génn faaw da ngay taxoo li nga xam ni moom la sëriñ bi def muy muy faydu bi dafa lay defal taskiyatu nafsi mooy sellal sa bakkan ba sa bakkan mujj mel bakkan yi nga xam ni moom la sëriñ Touba doon tudd ca jaawartu di wax ni dama moom sama bakkan ci jaamu yàlla nga xam ne jaam bi dootu topp bakkanam waaye bakkanam moo koy topp ci li ko neex nga xam ni bakkan bi jaamu yàlla day mujj neex ci moom koor day mujj neex ci moom julli day mujj neex ci moom bu dee zikir sikir si di mujj neex ci moom li koy defal loolu nag mooy faydu bi nga xam ni moom la sëriñ bi def waaye da koy defal tarqiya mooy da koy yéege ci yàlla ndax jaam bi mën naa set mën naa laab bakkanam mën naa sellu waaye du yéeg ci yàlla mooy ba tey yéegagut ci anwaar yi mooy ruuxam mënagut a génn ci fi nga xam ne mooy mulk bi mënagut a dem ci malakoot bi ba yéeg jabaroot di ballulu ci xeeti xam-xam yi nga xam ni ay njariñ lay doon yoo xam ne day ñëw ci moom di meññal yoo xam ne jaam bi daf koy jëfandikoo ci jaamu yàlla yi ndax bépp jaamu yàlla boo xam ne jaam baa koy jaamu yàlla am na meññat bu cay génnee bu fekkee amagul tarxiya mooy yéegalaguñ ko ci yàlla ruuxam yéegagul du mën a mos ci meññat yooyu kon nag faydu bi boo taxaw moom loolu la sayxul murabbi bi war na defal mooy yéege sa ruux ci yàlla faydu bi loolu def ci yow ba nga mujj nag nekk ci jaam ñi nga xam ni ñoom la ñu woy muxlisiin ndax alxuraan daf ñoo digala nañu jaamu yàlla waaye naan ak ixlaas wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisiin mooy na ngay jaamu yàlla waaye na sell ndax jaamu yàlla ñaari sarta koy tax a wér benn bi mooy mu am ixlaas bu sellul ngir yàlla yàlla du ko nangu faydu bi day tax nga mën am ixlaas bu ñaareel bi mooy day tax mu tegu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax jaamu yàlla gi bu tegul ci ni ko yonent bi jàngalee jaamu yàlla gi du mën a baax te bu dee da ngay jëfandikoo faydu bi faydu bi day tax nga mën a boole ñaar yëpp ndax am na istixfaar am na laa ilaha illallah am na salaatu ala nabi te salaatu ala nabi sëriñ bi nee na day tax nga sax ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon boo taxoo faydu bi foofu la lay yóbbu waaye boo ko taxoo daf lay def waliyu kaamil waliyu kaamil nag li sëriñ bi doon jàngale ci wilayatul suxra ak wilayatul kubra boo taxoo faydu bi foofu la lay dugal mooy boo duggee ci wilaya da ngay daal di dugg ci ñi nga xam ni ñooy xejj yàlla yi ñi nga xam ne yàlla daf leen a def xarit boole leen ci ñi nga xam ni yàlla neewoon na ci hadisul qudsi mooy wax yàlla mu wax ko yonent bi salaa salaam yonent bi wax ko cay baatam mu ni képp koo xam ni da ngaa noonoo kenn ci sama jaam ñi man yàlla déclaré naa la guerre. kon bu fekkee da ngay taxoo faydu bi faydu bi daf lay ci kuréel boobu nga xam ni képp ku jàkkaarloo yow ci guerre mi ngi guerre ak yàlla waaye day. day dem ba mu yàgg sa lépp yàlla kon boo laajee yàlla mu jox la kon noonu la ko sëriñ bi waxee ni bu fekkee da ngaa taxoo faydu bi foofu dalay yóbbu bu yàggee nag dalay defal nga am kasfu mooy nga wuññeeku mbir yi mbir yëpp nga xam fa mu jógee ak fa mu bàyyi ko ba lu di rek nga xam na ci yàlla yëngal loolu di jaar ci kaw di yëngu boo waxee nga xam ne lii la jubloo wax di la fàttali ci yàlla nga dégg sa nopp ndax sa dégg gi sar na ci déggu yàlla gi am na kas su nopp bi bët bi mi ngi gis ci zuhuru masahiru tajaliyaatu rabbi mooy tajali yi nga xam ne borom bi da koy def fépp foo gis da gis masahir yi bu delloo sa bët bi day delluwaat ci delloo la ci yàlla day dem ba mu yàgg sa làmmiñ lépp day dellu ci yàlla ba nga xam ne yow sa lépp mënatu a génn yàlla ndax léegi kas bi nga xam ni moom la góor yàlla soxla sëriñ bi nee na faydu bi dala koy defal bu ko defee nag dala yóbbu ci xadratul qudsi yóbbu la ci xadratul uluhiyya bu la yóbboo foofu nag léegi yow nekkatoo koo xam ne da nga absent waaye léegi ko présent nga doon mooy amatul loo xam ni moo jàll ci yow amatul lu jublu si lépp lay teew ci yow lépp a ñëwandoo foofu nag bu ko jaar tolloo foofu ma muhammad rasulullah nee na ci la mbooleem góor yàlla yi di yéege mbooleem moojisa yi nga xam ne yonente yi ñu ngi ko daan def ci baat bi lañ ko daan defee waaye moojisa ba ci boppam daa ñëw ngir feeñal li nga xam ne mooy baat bi mbooleem yi yi nga xam ne moom la leen yàlla doon jox ñu koy wàccee téere yooyu dafa ñëw ngir saxal baat bi ci suuf waaye dafa ñëw ngir wéral baat bi mboolem yonente yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon dañoo ñëw ngir biral baat bi ngir saxal baat bi ci ka suuf mboolem karaama boo xam ne yonent dana ko waliyu dana ko def karaama boobee da koo def ngir saxal li nga xam ni mooy baatu laa ilaha di baatu muhammad rasulullah te baat boobu moom la sëriñ bi tënke li nga xam ni mooy faydul arifin sëriñ bi nag wax ni faydu bi day fekk loo xam ne lu jafe la da ko yombal léeg-léeg nga dégg ñenn ci murid ni di jàkk di jàmbat lu mel ni am am fan yee maa ngi jox ni ku banque amul xaalis dee jàng faydu bi bu fekkee dara del del jàng faydu bi bu fekkee da nga am mbir yu jafe yu të del jàng faydu bu fekkee da nga am ak tëj ci yàlla bu ñu laaje ndax jaam ñëpp na ma yàlla dañ naan waaw bu ñu nee ndax jaam ñëpp seen borom na mën a leen dañ naan waaw waaw bu ñu nee ñi nga xam dañoo wedd yàlla nag ndax dañoo namul yàlla dañ ah kay bëgg nañ yàlla waaye bëgg gi ñu bëgg yàlla moo tolluwul jaam bi nga xam ne dafa wedd yàlla bëgg na yàlla wër googu mu wër yàlla ca xaram ba wala leneen sopp gi mu sopp yàlla ak bëgg gi mu bëgg yàlla moo tax mu ko w ca loola ba fa yem ca loola keneen ki nga xam ni yàlla da koo def mu nekk muslim boo xam ne dafa nekk ci suuf nekk ci li nga xam ne moom la sëriñ bi di naan dafa nekk ci gerte bi ci xisru bi ci dara bi la nekk kooku bëgg na yàlla waaye bëggu yàlla ki nga xam ne dafa nekk ci lubb bi nekk ci gerte bi ba toj ko du benn ki nga xam ne segal na ko ba dem ci diw gi bëgg ga mu bëgg yàlla du tolloo kon daraja yi ñoo tolloon waaye jaam ñëpp bëgg yàlla ndax yàlla bëgg na jaamam ñëpp dañ naan waaw yàlla bëgg na jaamam ñëpp ndax bu leen bëggutoon du leen sàkk ndax jaam ñëpp ñi nga amee ci iradatullah ci nammeelu yàlla mooy li fi am al wujud dañuy wax ne mi nga amee ci al mahabatu billah mooy li fi am mi nga amee ci coobare yàlla ci nammeelu yàlla yàlla damaa bëgg la wax damaa bëgg googe ci la amal ci la amal damaa bëgg googe nag ci li ko ta li ko tàmbal dañuy wax ni mooy pepp bi nga xam ne mooy pepp kun fayakun ci la yàlla amale ndir ñi kon dañuy wax ni al mahabatu boobu yàlla wax ñëw na ci lépp moo tax sëriñ bi cofeelam gi dafa làmb mbooleem jaam ñi moo tax ni ñi nga xam ne dañoo namm yàlla bu dee ñi nga xam dañoo namm yàlla rek ñëpp ñu ngi ci biir képp koo xam ne da jëfandikoo baat bi dana la yóbbu ca faydu ba bu la yóbbu ca faydu ba rek dana la naanal dana la màndal ci yàlla bu dee faydu day tekki ba tey li ñuy wax ceeñeer mooy jant bi bu tàngee da ngay seen tàng-tàng yoo xam ne mooy bàyyi ko ci kaw di wàcc ci suuf tàng-tàng yooyu di bàyyi ko ci kaw di wàcc ci suuf ginnaaw bu ndox mi tawee ba noppi tàng-tàng yooyu moom mooy li nga xam ni mooy ñoral li nga xam mooy gàncax gi leer yi nga xam ni mooy bàyyi ko ci faydu bi ruux jaam gi nga xam ni dafay dund yàlla ruux gi nga xam dafa mànd yàlla mu dugg ci jëmm ji jëmm ji tëj ko mu fàtte yàlla bu jëfandikoo faydu bi faydu bi day yënga ruuga da ko yee bu ko fee ñaari courant yi bu ñu dajee rek jaam bi day yeewwaat ci boromam jóge ci nelaw yu doon nelaw daal di ñëw ci yàqasa bi nga xam ni moom lañ soxla ci jaam bi bu ko defee moo tax sëriñ bi ni képp koo xam ni dafa namm boromam rek daa war a ñëw ci faydu boobu mu ni nag faydu bi dafa nekk loo xam ne boo ko jëfandikoo du lay indil benn coono du lay indil benn jafe waaye li mu làmboo ay mbóot ak ay leer nee na làmmiñ mënu koo tudd kuy wax tamit mënu wax ba wax lépp waaye da nga rek yenn yi nga xam ne yenn jaam ñi manees na koo jëfandikoo sëriñ bi ne yenn ci jaam ñi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jaamu yàlla waaye dañoo manqué sayxul murabbi boo xam ni moo leen orienté di leen yóbbu ci yàlla nee na boo jëfandikoo fay faydu bi faydu bi daa nekk sa sayxul bi boo xam ni moo la yóbbu ci yàlla comme li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ni wasilu aqlaani ilallaahi abida bila xalwatin noonu la ko sëriñ bi defee mooy boo jëfandikoo faydu bi dalay yóbbu ci yàlla ci lu dul def ay xalwa ci lu dul ngay ci lu dul ngay am benn coono ba bi nag mu indi ko nee na mu nekk ay baat yoo xam ni baat yu yomb la yoo xam ne day jëfandikoo ci jëfandikoo bu yomb mu yéegal sa ci yàlla ñeneen kuréel gi nga xam ni faydu bi moo leen tax a jóg mooy ci maas gi xam ni dañoo def ini iraaf mooy dañoo fetteerlu ci beneen côté bi nangootu ñoo jaamu yàlla ba nekk ci beneen côté bi nga xam dañoo fetteerlu ñooñu boo leen bëggee suubaat ci yàlla da nga leen jox faydu bi koy jëfandikoo buñ jëfandikoo faydu bi rek dañuy daal di ñëwaat ci yoon yi nga xam ni mooy yoonu wi nga xam ni mooy yoon wi gën a jub di yoon yi nga xam ne mooy yoon yu gën a sell te sëriñ bi nag nee na dafa gis ni yoon yi nga xam ni moo gën a gaaw ci yóbbu jaam ci yàlla mooy tarbiya ndax nee na tarbiya mënul ñàkk ci jaam bi mooy ñu fóot xolam ba mu set sellal bakkanam yéege ruuxam ci ci boromam mu mën ne nekk jaam bi nga xam ne moom lañ soxla mu nekk li yàlla di wax naan kuunu rabbaaniin nekk leen nit ñoo xam ne dañuy yàllaa dañoo soxla jaam boo xam ne jaam bu yàllaa lay doon mooy jaam day saf sàpp ak boromam yàlla boo ko gisee fàttali la yàlla bu doxee nga gis yàlla ca moom loolu la sëriñ bi wax mu ne kii jëfandikoo faydu bi foofu la koy yóbbu nee na nag li ci gën mooy ngay defar génération par génération mooy ñëpp ñoo xam da nga leen tarbiya nee na ñooña danañ mën a tarbiwaat ñeneen yóbbu leen ci li nga xam ni mooy yoon wi nga xam ni mooy yoonu yàlla mu des beneen kuréel bi mooy ñi nga xam ne dañoo taayal ci jaamu yàlla ñi nga xam ne dañoo nanguute jaamu yàlla sëriñ bi nee na ñooñu bu ñu taxoo li nga xam ni mooy faydu bi dana yee li nga xam ne moo nekk ci ñoom ngir ñu sawar dem wuti ji yàlla ngir ñi nga xam ne ñoo jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér sëriñ bi nag li wax ni moom la ko tënkee mooy 24 lettres yi nga xam ni mooy 24 yi nga xam ni mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te benn bu ci nekk di benn araf araf bu nekk sëriñ bi def ci benn ñaan wala boog mu def ci benn zikir wala boog mu def ci benn sant yàlla ci làmmiñ wala boog sant yàlla ci xool bu ko defee nga xam ne yooyu yëpp day delluwaat ci bunt yooyu te buntu bu nekk nag làmboo na mbóot moo xam ni moo nekk ci baat boobu di laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah ndax ku ne xam na ni nit ku nekk nitu yàlla dañuy yow sa jëmmi bopp yow kawnu nga ñenn ñi ni boo boolee jaam ñëpp ñooy kawnu ñenn nitu yàlla yi nii kenn ku nekk sa kawnu bopp la ñenn ñi ni kawnu bi ñu nekk mooy kawnu waaye benn bu ci nekk boo ko jëlee da ngay gis ni laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah boobu nga xam ne moom la sëriñ bi ubbi muy bunt bu nekk da caa nekk bunt bu nekk am jaarwaay boo xam ne li jaam bi soxla ci yàlla bu ca jaaree ba nga ci buntu boobu nga xam ni moom mooy faydu bi di fukki lettre rek ñaari ndax sa suba gi 12 heures de temps la sa guddi gi di 12 heures de temps nga boole ko muy 24 heures 24 heures yooyu nag boo ko boolee mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah noonu la ko sëriñ bi tegee jële ko ci alif gi ci gi ba mu yegg boole ko muy fukk muy ñaar fukki lettre ak ñeent ñaar fukki lettre ak ñeent yooyu la commencé ca aadama ba ci yonente bi salaa salaam loolu lañ doon jàngale di naanuwaay yi nga xam ni bépp nitu yàlla bu mos a ñëw ci suuf yàlla jox na la naanuwaay boo xam ne ña la toog ñu maree ci yàlla ca nga leen di màndal bu ñu tilimee ca nga leen di sang ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam faydu bi mu yoroon mooy kalimatul haqq di laa ilaha illallah nit daana rey nit nit daana naan sàngara nit daana njaalo ba tax rit bu dikkee mu jox ko baat bi bu ci guuxee benn guux nekk nit ku set nekk nit ku laab nekk jullit bi nga xam ne jullit boobu la bëgg loolu nag moom la sëriñ bi indiwaat ndax jamono ju nekk dañoo wax ni danañ indi ñoo xam ni dañuy des ci jamono di leeral jamono nekk ay làmp yoo xam ne bu nit ñi réeree ci seen borom ñoo leen di gindiwaat di leen orienté waat sëriñ bi nag def gi mu ko def du daa bëgg a bind di bind waaye dafa am ndigal ci borom bi subhanahu wa taala ilham ilahi comme ni nga xam ne noonu la yàlla di wax ak suuf si ni nga xam ne noonu la yàlla di wax ak nday Moussa ni yàlla di wax ak ni yàlla di wax ak yeneen yonent noonu lay wax ak sëriñ bi sëriñ bi dégg ko mu jox ko ndigal ni ko jamono ji dafa toll foo xam ne dafa yàqu te ndaw ñi dañoo soxla ku leen orienté waat delloo leen ci yàlla ni ko defal lii naanawaay bi nga xam ne moom laa jox aadama jox ko yonent bi salaas jox ko Aysa jox ko Cheikh Amadou Bamba moom laa la jox muy laa ilaha illallah bi nga xam ne mm. moom la Serigne Touba doon tarbiya mag ñi di ci tàggat ba seen ruux yi nekk ruux yi sell ba ñu nekk ay nit ñi nga xam ne boo leen gisee doo leen wuutaleeg saxaaba yi sëriñ bi bi mu dikkee loolu la ubbi waat muy faydul arifin wasulamu raxibin baat yi nga xam ni moom la sëriñ bi jëfandikoo ci biir faydu bi di laa ilaha illallah muhammad rasulullah te sëriñ bi defal ko benn bu ci nekk ab buntu boo xam dafa am ñaan bu njëkk bi mooy laa ilaha illallah la maabuda siwa tawhidul arifin mi ngoog mooy tawhid bi nga xam ni nitu yàlla yëpp moom lañ wut dañoo xam ne junni maqaama yi nga xam ni moom la jaam di dox ci diggante mu boromam ba yegg ci tawhid bi nga xam ne moom nga nekk dëgg dëgg jaam bi ñu soxla boo takkoo bay bu njëkk bi rek laa ilaha illallah la maabuda siwa da nga dem ba sa gis dootu nekk gis mënatoo gis lu dul sa borom hmm. mënatoo yëg lu dul sa borom mënatoo daj lu dul sa borom baatu laa ilaha illallah irham nii du neen waxraa yermaane bi nga xam ni jaam bi bu fekkee amu ko mënul mos dara ci boromam ndax dañuy wax ni julli wala jàpp dafa am lu muy àndal lu muy àndal nag mooy mahabbatu billaay mooy sopp yàlla bëgg yàlla ndoxum kese mënta jàpp bu fekkee dangay jàpp am jaam boo xam da nga koo iñaane wala nga soxore ko wala nga def dara kooku mënoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér te baatub laa ilaha illallah irham nii biha duniyeen waxraa ci rahma boobu nga dugg ci moo rahmatu dunya boo ci duggee sa jaamu yàlla day commencé di wér laa ilaha illa kullu shay'in yàlla moom lépp loolu yaa ngay dugg ca ya mooy li nga xam ni mooy gëm ni lépp li liy dox mi ngi doxee ci yàlla yàllaay wërsëgal jaam ñi mi ngi defal ñëpp baatub sahaada bi ñu doon wax nga am sa saxaada bopp boo xam ni doo ko roy ci kenn yaay dem ba xamal sa bopp nekkug yàlla gi ci lépp yaay dem ba xam ne ni fi yàlla nekke te nekku fekk dara nam fi nekkoon démb noonu la fi nekk tey te nekku fekk dara la la mooy laqiin yi biha kalimatu sahaada boo ca saxee baat bi yóbbu la foofu bu fekkee da ngaa bëgg a yëg ca darajatu góor yàlla ya mooy laa la laa ilaha lii habli biha min ka ahla darajaat boo ci saxee léegi mu yóbbu la foofu du ma wax ni fay du waaye sëriñ bi ni mu ko tënkee par ñaan bu ci nekk bu ko jaam saxoo mu yóbbu ko foofa bu fekkee da ngaa bëgg a xam xam-xam bi nga xam ne mooy ilmu la nii bi nga xam ni moom la Moussa doon sàkku ci xudar tamit ab yonent te yàlla joxu ko ko woon mu dem di ko sàkku ji ca moom ba jaral ko mu koy tarbiya bu jaam saxoo faydu bi laa ilaha illallah alhimni bia ilman min ladun ko xam-xamu laduni boobu nga xam ne mooy raxma bi jaam bi yàlla dana ko jox ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ni mooy faydu bi nga xam ne moom la sëriñ bi def loxul mulku wala lu am du jaam bi dem ba nekk ci cantuk yàlla gi mooy iblis yàlla dinaa fexe ba sa jaam ñi kenn du la sant ci sa kaw suuf fekkee ba ngaa génn ci ñi yàlla de wax ni ba mu des sama jaam ñi nga bëgg a dugg ci jaamu yàlla yi ñi nga xam ne dañuy sant yàlla fépp boo saxalee diggante baat boobu bayit boobu donc laa ilaaha illallaah loolu mulku wala lu am du mu dugal ci cant googu bu fekkee jaam bi dafa bëgg a mucc ci sawara ndax sawara ñaar la comme ni àjjana nekkee ñaar mooy àjjana àdduna fii lañ koy commencé dund fay du bi dalay mat di la yóbbu ci ngay dund àjjana fii ndax alxuraan nee na tey jannatayni daan wax na ko wax na ñaari ne am na ñaari àjjana mooy àjjana ji nga xam dañ koy dund fii mooy àjjana xam yàlla te àjjana jooju boo ko réeree fii boo demee fii doo ko dund ndax yàlla nee na ci alxuraan képp koo xam ne da gumba fii boo léegee da ngay da ngay gumbaat fële képp koo xam da ngaa dund fii sawara boo léegee da ngay dundaat fële sawara bu fekkee ah taqin nii biha minan naar mooy nga mucc ci sawara laa ilaha illallah bii dalay yóbbu ci bopp bu fekkee nag bëgg am li nga xam mooy aljabru mooy ruux dañuy wax ne jabaruuti la mooy koo xam dañ koo not ci ak yàlla sa ruux notu ci jaamu yàlla ba mënatu def lu jaamu yàlla laa ilaha illallah loolu aysatu wal jabaruut foofu la lay yóbbu bu fekkee da bëgg am li nga xam mooy bànneexu jalaal ndax dañoo wax ni jalaal dafa nekk lu tar waaye lay wàcce ci yow ak i coona mu nekk loo xam ne danga koy bànneexu di ko bëggee mattix nii bee alwaa jalaalika bu fekkee da nga koy takkoo daa gis ni laa ilaaha illaa foofu la la yóbbu xaqan taqiqa mooy dëggu gu dëggu ndax nit mën naa nekk ci loo xam ni dëgg la waaye moom du dëggu bu fekkee bëgg ngaa dëggu ci baat bi xaqan taqiqa dala ci yóbbu mu ji bu daawaat mooy bu fekkee danga bëgg a nekk am jaam bu am ijaaba jaam bu am ijaaba ci boromam bu woowee boromam muy ko mu ji bu daawaat foofu la la yóbbu bu fekkee jaam la boo xam ni dafa bëgg a ci li nga xam ni mooy ay noonam te ay noon sëriñ bi waxam na ni mooy bakkan ak àdduna ak seytaane ak duniya ñeenti ñii mooy ñeent ñi nga xam ne ñoo gàllankoor jàmm bi ba tee koo xam lan mooy awaloom ba tee koo xam lan mooy aaxiroom ba tee koo xam lan mooy zaahiroom ba tee koo xam lan mooy baatinoom ñeent ñi ñoo ko tee xam bu fekkee dafa takkoon nag damir bi aada yi yàlla natal ko noonu yooyu bu ko defee mu xam ci moom lan mooy awaloom lan mooy aaxiroom lan mooy zaahiroom lan mooy baatinoom bu ko defee nag mu doog a xam waxu bi kulli shay'in alim wala jaamu yàlla di doog a doog a wér bu ko fikkee nag dafa bëgg a nekk ci jaam bi nga xam ni rabbu kulli shay'in wa xaaliquhu wa raasixuhu mooy li ñu doon wax léegi ci li nga xam ne mooy rububiyya nga xam ni yàllaay wërsëgal jaam yàllaa bind jaam ñi di doxal seen lépp mu gëm ko faaw mu dem ca li ma doon wax léegi nag naan yombal lu jafe mooy képp koo xam ni sa mbir daa dëgër nga bëgg mu jafal mu yomb sa xilli biha kullama taassara bu ko jaam bi saxoo léegi foofu la ko yóbbu bu fekkee jaam bi dafa bëgg a nekk nag koo xam ni kuy wéetal yàllam la waahidun ahad bu ca taxawee léegi léegi jaam bi dootu nekk génn nekk guddul nekkuk yàlla te foofu mooy bànneex bi nga xam ni mooy aljana ji nga xam ni moom la jaam ñi di wër bu dee ñi nga xam ne nag dañoo bëgg li nga xam ni mooy yàlla defal leen li nga xam ne mooy ngëneel yàlla defal leen karaama yàlla yëkkati leen loolu fadul wal karam kon nag sëriñ bi lépp loo xam ni jaamañ koy wut ci faydu bi bu ko ubbee par buntu par buntu sëriñ bi indil na ko ci lenn lu ci nekk yoon woo xam ne bu ko jaaree bu boolee lépp mu nekk nit ki nga xam ne moom nit lañ soxla mooy insaan kaamil bu bu fekkee ku bëgg am basiira la bu jàngee faydu yàlla jox ko basiira bu fekkee dafa bëgg am aqlu rabbaani mooy xel moo xam ne mooy xel mu sell mi nga xam ni moom la yàlla doon jox nitu yàlla yi bu taxaw faydu bi yàlla jox ko ko bu fekkee dafa bëgg basaram ak basiraam ñu lënkoo mooy bëti boppam yi di gis yàlla comme ni ko bëti xoram di gisee bu takkoo fayda bi loolu day daal ndax sa basira bu bënnee sa basar ñoom ñaar dañuy lënkoo bu ñu lënkoo nag lenn lay doon boobaa nag sa lépp day gis yàlla bu fekkee jaam bi dafa bëgg mbu mi set mooy yaram bi mooy jismu bi bëgg na yaram wi set ba ki koy sol di ko ndamoo mooy róo gi bu boobaa bu takkoo fayda bi foofu la ko yóbbu bu fekkee bëgg na ak déggam nekk déggu yàlla bu takkoo fayda bi ma nga ca bu fekkee bëgg na kàddoom nekk kàddug yàlla bu fekkee nag dafa bëgg cofeel ci yàlla mooy bunt bi nga xam ne moo gën a gaaw yóbbu jaam ci yàlla comme la rabiatul adawi doon wax bu taxoo faydu bi cofeel googu la ko yóbbu ci digganteem ak boromam ndax cofeel mooy bunt bi gën a gaaw ndax yonent bi salaa salaam neewoon na gëmu kenn balaa mat ma a la sa ndey a la sa baay gënal la ñëpp bi Serigne Touba dikkee ni pour nga nekk murid saadix lam njëkk a teg mooy almahabatu mooy mahabatu cheikh mooy bëgg sëriñ bi moo tax sëriñ bi indil na leen lépp loo xam ni gaa yu baax yi daanañ ko xantewoo mu nekk seen téere sëriñ bi segg na ko kon nag li ñu digal jaam ñëpp mooy nañu góorgóorlu xamaat li nga xam ne moom la leen sëriñ bi waajalal xamaat li nga xam ne moom la leen sëriñ bi jox mooy faydu bi kenn ku nekk di ca nekk waaye kenn ku nekk nag bu ca bëggee leer mos ca leer ya comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Tuubaa defee bi mu defee wérdul maaxuus jox ko murid yëpp murid yëpp am ndigal jëfandikoo daa am silsila boo xam ni boo bëggee mos ca leer ya bëgg ca am sa jagleeru bopp da ngay am ndigalu loo xam ne xaas lay doon da ngay dem ci sëriñ bi yeesal sëriñ bi jox la ko jox goo xam ni boo ko jëfandikoo dana nekk loo xam ne dana la yóbbu fa nga xam ni mooy dëgg-dëgg mbir ya wala boo bi jox courant ba mu jox la ko ndax ko mul courant may kenn ci courant moo tax koy jox na fekk mu nekk koo xam ne courant ma ngay boy sëriñ bi ko ba muy boy comme ni nga ne moom sëriñ bi noonu a génn li nga xam ni mooy faydu bi kon nag Mbàkke ñi ngi jéggalu ci kàddu yi xam naa jataay bi gudd na lool te wax ji xëy na dégg gi demeewul noonu waaye ñu ngi lay tuubal bu baax di la jéggulu bu baax di ñaan yàlla suñu borom defal la tawféex ba yéen ji nga xam ne am nga ko ci jaam ñi nga mottali ko te yéen a jooju leen ne képp la mooy jaam ñëpp mujj dugg ci jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla gërëm ñu bokk ci jaam ñi nga xam ni ñoom la yàlla di sagoo ndax yow ab sag nga ci lislaam ab sag nga ci àdduna ndax li sëriñ bi wax rek ni bu ñëpp melee ni yow sëriñ Tuubaa am li mu te sëriñ Tuubaa kon bu ñëpp mel ni yow yàlla am li bëgg te sa yéene jëpp mooy jaam ñëpp mel ni yow ndax say kàddu liñ ciy déggee mooy bu ma ni ma bëgg a mel sama njaboot mel ko ñi ma topp ñëpp noonu laa ñu mel ko. loolu nag day wax joo xam ne wax ju rëy la ndax lii mu yor nii di ko joxe am na ñoo xam ne bu ñu ko yoroon duñ ko jox kenn dañ koy denc ndax am na ci ndigal nag bu ko neexee mu joxe ko bu ko neexee du ko joxe ndax fa mu jaar ba mën koo joxe yërmande yàlla ci Serigne Touba yoroon loola képp la yor moo tax mu mën ko jox jaam yi am na loo xam ne xam ko mm-hmm. te doo ko jariñoo ñàkk koo xam sax ñàkk koo am te di ko jariñoo sax moo ko gën kon nag am na loo xam ni yërmande yàlla la am na loo xam ne xéewalu yàlla la am na loo xam ne tawféex yàlla la tawféex nag néew gi mu néew moo tax yàlla tudd ko ci alxuraan lu bari tuuti la ko tudd sëriñ bi nag tawféex la fii tawféex la fële képp koo xam ne yàlla dalaa boole ci njabootam boo amee ndimbal da nga xam ni yàlla boole na góor yàlla ndax li gën a jafe ci jamono ji mooy yàlla boole laa ku mat yàlla boole laa ku mat li gën a jafe mooy kilifa kilifa goo xam ne lépp lu mu lay woo ci lu baax moo la ciy jiitu moo la dàq jaamu yàlla fuuf moo la dàq liggéey fuuf moo la man ci lépp loo xam ne yaa ngi koy def kooku nag bu la yàlla boole moom la la war mooy nga jël sa tumta jox ko mel ni gumba ni Serigne Touba xam ni ab taalibe day mel ni am néew ci kanam ko koy sang bu mu wax ne fii lañ may wëlbati wala fee lañ may jëfe na bàyyee boppam Serigne bi ndax Serigne bee xam li koy jariñ Serigne bee xam li koy dimbali kon nag la ko war mooy na joxe boppam def ni ñi nga xam ne noonu la Serigne bi murid yi defan ci moom ni nga xam noonu la yonent bi salaa salaam sahaaba yi defan ci moom mooy mu gënal leen seen ndey gënal leen seen baay gënal leen lépp sa gëm yàlla doo a mat sëriñ bi nag kenn du ànd ak moom ci xel li ñuy ànd ak moom mooy xol da nga koy jox sa xol ndax xel kiiraay la daa am foo xam ne bu fa xasee yam bu ko génnee day teg day sikki sàkka te sikki sàkka googu sa diggante ak sëriñ bi du la jariñ ndax sikki sàkka dafa bokk ci feebar yi nga xam ni day tilimel xol sëriñ bi tudd na ko bu ñaaw day tax doo jariñ ci sëriñ bi te sëriñ bi wax na ko ca melaw murid saadix kon képp koo xam ne ba ngaa nekk murid saadix joxal sa bopp sëriñ bi te bàyyee ko kon nag Mbàkke ñu ngi lay jéggul bu baax ci kàddu yi di la ñaanal nga yàgg lool te ànd ak wér di la dogal ngànt bu baax ci kàddu yi ndax ndigal rek lañ ko yëkkatee waaye du waaj du du man du xam waaye ak télé di la ndax boo joxee ndigal rek ñu wax donte xamuñ li ñuy wax ndax xamuñ ci liñ li ma ci wax léegi loolu laa ci wax man bu ma ko xaalis daal koy tegaat bu may wër yàlla di ko jàng benn bay laa jël daal di sar ci mbedd mbedd sarale ndax man noonu laa koy jànge moo tax du ma ci du du ma ci ma ci sori baat par baat laa koy jàng léeg-léeg baat boobu yóbbu ma ci yàlla foo xam ni damay daal di doy sëkk ndax doy na sëkk kon nag ñu ngi ko ñu ngi koy digal lépp ndax nit ki li nga mos da ngay da ngay bëgg ñeneen ñu mos ko kon sax leen ci te te te jëfandikoo ko ñu ngi jéggalu baax mbàkk ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa

lépp looy def boo ko yégee boo ko yëgul it day delluwaat ci yàlla rek moo tax bi nu defee jàngat ci ci ci ñeenti baat yi nga xamante ni moom la sëriñ bi def ci faydu bi mi baatu faydu ak aarifiina ak wasulamu ak ak raaxibiina lépp day delluwaat ci euh, baatu Allah baatu faydu boo xoolee valeur numérique day doon cent quatre cent quatre yooyu mooy jàpp allahu jaamiu mooy jàpp allahu jaamiu boo xoolee baatu al aarifiina mooy jàpp allahu rabbu xayu cent vingt 422 boo xoolee baatu wasullamu mooy jàpp 376 di jàpp allahu rabbu xaq boo xoolee arraaxibiina mooy jàpp 1194 mooy jàpp turu yàlla allahu jaamiu razaqu baatinu bismillah kun fa yakun kon day mel ni boo boolee loolu lépp daf lay jox 2192 muy faydul aarifiina wa sullamul raaxibiina mooy 2192 te bis bi dañ koo dara jaale bismillahi rahmaani rahim muy basmala boo jëlee adadul mashriq ak adadul maghrib muy 1027 ci basmala ak 1026 ci basmala boole ko ko huwallaahu baatinu moo lay jox faydul aarifiina wa sullamul raaxibiina kon lépp day jàngale ni téere bi génnul génnul yàlla buñ ci fikroo sayru ci danañ dem ba génnee ci leneen lu dul lii waaye boo xoolee faydul aarifina wa sulami raaxibina muy 2192 nga pilis ci quatre kalima yi ko tënk muy faydu al arifin wa sulama ar daf lay jox deux mille cent quatre moo jàpp xay xay dara mbàkke boo ko multiplier neuf moo lay jox deux mille di delluwaat ci faydul arifina kon dara du ci du du ci hasard gis naa it faadal faydu buñ nee faadal faydu leen rek la ñu moo ca des mooy ñu ñaan yàlla wa asqina ndax faydu bi bu xasee ba bëbb rek faada al faydu bu faydu bi xasee ba bëbb mooy ma ngay sottiku ku yaafus nag nag doo ca nan ndax faydu bi moom bu xasee ba ba bëbb rek lenn ca des mooy ñi war a naan ñu naan kon ginnaaw faydu bi bëbb na bu ñu waxee bëbb nag mooy paan bi nga dékk di duy fees na ma ngay tuuru lay tuuru nag mooy lay moom la wax naan faadal faydu faydu ba bëbb na ma ngay tuuru la cay tuuru nag képp ku ëpp pasteef sa morom rek. daanaka yaa ci ëppale sa morom ndax amul waay kon ñu jàngat ci loolu xam ni xam ni téere la boo xamante ni téere la boo xamante ni mënoon nañoo dund ba faatu te duñ ci teg bët lu mel nii kon tawféex mën nañoo wax ni tawféex moo ñu ci jotale kon dañ ci soññaat suñu bopp bu baax a baax di ci soññaat mbokk taalibe yëpp te xam ni jëmm ji di ay dara Mbacke dama koy wax saa su ne xanaa ma bamtuwaat ko rek nanu xam ni alalu àdduna ñoru ko nañu xam ni alalu àdduna ñoru ko te it leen ci àdduna lu gën lii mu leen jox muy laa ilaha illallah ndax lim la jox muy laa ilaha illallah ci nga mën a jaamoo yàlla jaamu yàlla gu yàlla nangu ndax li lay dàqal di la saxalal di la dàqal di la saxalal di la dàqal di la saxalal dem ba saxalal la sa jëmm ji loolu ku la ko xamal ku ne amatoo lenn loo ko mën a faytee ci àdduna kon joxu leen alal bu gën laa ilaha illallah joxu leen téere bu gën ci yéen faydul aarifina wa sulami raaxibina maa ngi ciy waxtaan ak benn kilifa mu laaj ma ne ma faydu bi ndax sëriñ ay daraa ko bind ndax boobu ba tey mi ngi may wax sax ne ma bëgg naa gisante ak sëriñ bi mu ne ma ndax sëñ bee ko bind ma ni ko sëñ bi de moo ko bind mu laajaat ma ko lu mat ñetti yoon ne ma ndax sëñ bi moo bind faydul aarifina ma ne ko moo ko bind waaye yow lan moo tax nga ma koy laaj di ma ko laajaat mu ne ma demaa seetlu faydu bi yàgg naa koo liggéey ay at waaye sëñ Tuubaa rek laay gis làmminam sama làmminam sama nopp te Mbàkke la sant te mësul gisante ak sëriñaay dara mu ne dama koy liggéey saa yu ma ko liggéey sëñ Touba rek laay gis ñu amee ko nanu ko bëggee di ñaan soxna yàlla yi ngërëm yi nii sàkku ci sëriñ bi ñu amee ko nanu ko bëggee ci barkeb laa ilaha illallah muhammad rasulullah jërëjëf wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen warmaal dileen jox seen wàccuwaay di ñaanal sëriñ ay dara Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ ay dara Mbàkke yàlla na yàgg lool te ànd ak wér sëriñ dara Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Xaadim Mbàkke Anta mi nga xam ne mooy jëwri ni sëriñ dara Mbàkke ci biir kër gi yor daaree alquran ji di jàngale alquran di yar ndaw ñi moo doon def waxtaan wi léegi ci faydu bi te nun noo ko sàkk woon ci moom ne ko danoo bëggoon jaare ko ci sëriñ bi ndax ba ma ko waxee dana ma ah bu ma ci amee ndigal di def ko waaye su ma ci amul ndigal duma ko sañ ñu jaar ci sëriñ bi ne ko ah bu nu sañoon da nga waxal nu suñ xaadim mu waxtaan ak ñun ci faydu bi soññuñu ci gën ñu cee ñaaxaat lii nag li ko sabab du dara du dara lu dul delloowaat nit ñi ci yàlla suñu boroom waaye tamit xam li waral ay dara Mbàkke di ànd ak nun loolu képp yitte jooju képp lañ ci am jëwrin Moussa xasida ak soxna faat Njaay bu ngumba ak soxna faatu Fall mi nekk fii ci daara ji di soxna si jëwrin Mbàkke Fall ñoom ñett ñoo am xalaat bii mooy ne dañoo war a def ngontu faydu faydu bi biñ ko amee dikk waxtaan ci ak nun nu yeggee ko sëriñ bi sëriñ bi nangul na ko te loolu lu yàlla la ndax faydul xaarifiina bi sëriñ bi bind warees na ko di waxtaanee ndax ci guddi yi ñu toll am na ñoo xamante ne bii ne bi ko sëriñ bi jëlee def ko fu am na ñoo xam ne sax dafa mel ne dañ koo bëgg a moomale seen bopp kon nag ñun ñi nga xam ne nun nooy njabootug sëriñ bi te sëriñ bi bind ko teg ko ci sunuy loxo suñu ay dara du ne dee ko jànge nii dee leen ko defee nii wala mu toog di ci di ci di ci di ci waare ngir nit ñi waaru ci barki dem biñ toogee fii ci ci ci jumaa ji wax naa ko nee naa ko ñun de war na noo sant ndax bu njëkkoon 99 bi ngay door a ñëw dakaar nun ak yow dañ daan yendoondoo guddi ak bëccëg ba 2 heures de matin 3 heures de matin nga nuy door a bàyyi te buñ xëyaatee huit heures ci suba neuf heures dix heures noo lay fëgg nga toogaat ak ñun ba waxtu woowu jamono booba sëriñ bi danaan wax nuy dégg mu di nu joxoñ di nu wan di nu tarbiya di nu tarbiya ci tarbiyatu ruuxiya ak tarbiyatu nafsiya ñu dem ba jëmmi jamono sëriñ bi jotam mayatu ko muy man di toog ak daan toogeek murit yooyu saa su ne mu bind faydul xaarifiina bii nag wax ne nam daan defee nam daan tarbiyaa ñooñee ak na mu leen daan tàggate noonu la faydu bii di tàggate jëmmi doomu aadama bu ko dee bu ci dee yëngu kon lu nu war a fonk la lu nu war a farlu la ñi ngi sant bu baax mbooleem seexul murabbi yi ndax ñoom ñépp ànd nañu ak seeni njaboot ñëw teew di siyaar bu baax Cheikh Abdoulahi mi nga xam ne bis bii da daan def at mu jot mu ñëw di ci siyaare sëriñ bi waaye ñu santaat ci yàlla bu baax ndax jamono bee sëñ bi def maa woo ne ma nanga nga jokkoog sa gaay yëpp jëwrin yëpp nga ne leen damaa bëgg ziar bii nga xamante ne bii ne Cheikh Ablaye mu ngi koy def si di di di di tombeeg yow ma asura na nga soññ mboolem jëwrin yëpp ñu waajal ko te ñëw teew ci damaa bëgg sax mu nekk ziar annuel ziar bii mu nekk ziar annuel boo xamante ne bii na saa buñ tam xaritee ba ci suba ga murit boo xamante ne rek aju nga ci ëttub sëriñ bi mbaa nga aju cib seex mbaa ku mu mën a doon ñu yow daje si fii def ngontum faydu bi waaye nag ñëw siyaare waale ci sunu yaakaar yi àdduna ak àllaaxira muy sëñ Aydara Mbàkke kon dafa mel ne sëriñ bi lii yitteel na ko ndax moo bi abdillahi jamian wala tafarraqu sëriñ bi ci loolu rek la woote nanu boole suñuy doole nanu boole suñu bopp nanu boole suñuy jëm mu nekk benn sëriñ bi loolu rek la nu woowee sëriñ bi loolu rek la nu woowee kon ñi ngi sant mbooleem sayxul bi yëpp ndax gis nañ ne ndigal li sëriñ bi joxe woon ñëpp maase nañ jëfe ko ànd ak seeni njaboot ñëw teew Cheikh Ablaye mi ci doon siyaare ñu ngi koy sargal bu baax ndax li mu doon def ñun ñii la ko defal Cheikh siyaar bi mu doon def ñun ñii la ko defal nun ñëpp noo ko maasee def ndax ñun du ñu ñaari jëmm jenn jëmm lañu kon nag seex bi ñu ngi lay sant bu baax ci jëf jooju noonu nga def waaye di sant waa Thiès jëwrin xaadim mbay jëwrin xaadim mbay ànd ak mbooloom waa Thiès yëpp ñëw siyaar si sëriñ bi ci bis bii nga xamante ne bii ne sëriñ bi moo sàkku ci murit yi ne bu jotatee na ñëpp bàyyi li ñuy def ñu ñëw daje ci daara ji ndax bisub siyaar la mooy at mu beesum jullit yi ñun dañoo jàpp ne 31 décembre mooy atum at mu bees déedéet ñun at mii mooy sunu at at mu beesum jullit yi mooy weeru tam xarit gii mooy at mu beesum jullit yi sëriñ bi ne kon buñ tam xaritee ba ci suba gi di yow ma asura na ñëpp ñëw daje si fii ci daara ji kon ñi ngi sant mboolem bokki taalibe bi fu waay mën a bàyyi koo nag jëwrin xaadim ñi ngi lay sant bu baax yal na la sama borom dëbb kattan yaa ngi mboolem waa Cees yi ngeen àndal yëpp ñëw siyaar si sëriñ bi bu nu limee sax danan juum ndax fu ne nit bàyyi koo na fa waa ngumba oto lañ jël waa ngumba oto lan jël ci jëw ci ndigalul jëwriñ sëñ Fallu mi nga xam ne mooy jëwriñi Baay Faal yi mi ngi fi ak jëwriñ Alsaan Gay kenn desut ñëpp a maase ñëw ngir lan jëfee si ndigal li ak tamit dund si ci faydu bi ndax faydu bi naanu waay la boo xamante ne képp koo xamante ne bii ne bëgg ngaa mandi ci yàlla man bañ naa ko ku ma doon ku ma ko doon yëgal dama naan la daal bu dee dangaa ngaa mar ci yàlla te bëgg a mandi bu bis baa ñëwal boo ñëwee da nga ci yàlla ndax leer nañu ne da nga fa dégg loo xamante ne bii ne dana la dundal ci yàlla sunu borom dana la delloowaat ca delluwaay ba kon nag ñi ngi sant mbooleem bokki taalibe bi yëpp di leen ñaanal sama borom dolli leen tawféex sëñ Mbàkke Diop mi doon waxtaan léegi ñi ngi koy sant bu baax ndax ak cofeelam ci sëriñ bi akuk bëggam akuk jàppam akuk jaayanteem loolu moo waral ñoom ñi nga xam ne ñoo initié bis bi ne dañ koo bëgg dañ ko cee bëgg a dara jaale loolu coloré rek lay jàpp waaw coloré rek lay jàpp looloo waral ñu ne ñoom kat dañoo jël ci bis bi lenn ci bis bi dara jaale ko sëñ mbàkki mi doon waxtaan léegi muy sunu wëllëre di sunu xarit di sunu lépp loolu ñun seex yëpp mën nañ koo seede ndax ku ne la am lanteel ci ñun ñii muy alaaqa bu rafet boo xam ne mi ngi dox sunu diggante ak ñoom beneen bi ci dolli ñu ciy fàttaliku waale jëmm joo xam ne bari na ci mbooloo mi bu ñu leen tuddee aw turam sa xamuñu ko muy jëwrin daam saar jëwrin daam saar nun ak moom ak baay baara ak ñenn ci bokki taali bi am na ñoo xam ne ñu nag moom a nekk ca daara ja ba ñuy nekk ngumba muy nit ku ba ku yàlla baaxal na muy nit koo xamante ne bii ne nit ku bëgg turu yàlla nit ku jeex ci yàlla koo xamante ne boo ko séenee muy ñëw rek dangay xam ne kii ak maju sub la dafa jeex takk ci boromam muy jëwriñ daam saar te loolu am na ñu mën a def ay témoignages yu mel noonu fekke nañ loo xamante ne bii ne ñëpp a commencé fekk muy màggalu Tuubaa goo xam ne da doon tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla ba fiilu micro yi di ruy te ku xam ku ne xam na ne fiilu micro sëñ bi amul courant waaye da doon tudd yàlla tudd yàlla gu biir tudd yàlla goo xam ne rëxut dara di ko tudd di ko tudd ba fiilu micro yi di ruy moom jëwrin jooju muy jëwrin Dame Sarr moom lañ bëgg a sargalaale moom lañ bëgg sargalaale ci bis bi delloo ko njukkal wan ñoo ngi koy bàyyi xel te fàttewuñu ko maa ngi fàttaliku bis biñ mujjee dem seeti ji man ak sëñ ay dara fekk ko seen kër bi nu ñëwee fekk mu toog mu nuyoo ba noppi sëñ bi toog ci kaw mu toog nii ma toog nii yaayam di ko kalaame ak sëñ bi ne ko dama bëggoon mbakke nga wax ko muy lekk mu ne gees yaayam ne ko yaay dangaa xamut rek waaye man sëriñ daam faati jox na ma ma lekk ba ma suur jox na ma man naan ba màndi borom daaru jox na ma ma lekk ba suur borom daaru jox na ma ma naan ba màndi yow mii sëñ Aydara jox nga ma ma lekk ba suur jox nga ma naan ba màndi kon man soxlaatuma lekku àdduna te yaay ji nee na booba toog na lu mat fukki fanak ak juróom yoo xam ne gisut fu mu dugalee ñam ci gémmiñam di gisut fu mu dugalee sax ndox ci gémmiñam mu des mu ne sëñ ay dara mandal na ma ba ma mandi sëriñ daam faati mandal na ma ba ma mandi borom daaral moxti mandal na ma ba ma mandi kenn ku nekk ci ñëw ñoom ñii ñëw na fii jox ma ba ma mandi kon man soxlaatuma lekkuk àdduna kon kooku ku jeexoon ci yàlla la te nun ak moom noo bokkoon nekk ci daara ji doon laxasaayoondoo àndoon ak way juru sëriñ ay dara Mbàkke muy sëriñ daam Ahmadou Faati sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg te wér loolu lañ bëggoon a jàllale bu ko defee ñu présenté nataal bi nga xamante ne bii ne moom la waaw nataal yi nga xamante ne bii ne dañ koo defaroon bi muy biñ koy mujjee seeti maag sëñ ay dara dane yaayam daane sëñ bi wax ko muy lekk mu ne mu ne yaay sëñ daam faati ñëw na fi jox ma ma lekk ba suur borom daaru booba teg na fukki fanak ak juróom dugalul ñam ci gémmiñam mbaa ndox daa ay bis lañ ci teg mu wuy ji boroomam kii dafa jeexoon takk ci borom daaru muxti dafa jeexoon takk ci kalimatul xaq maa ngi koy wax léegi laa ilaaha laa ji bu tàmbalee mën na fee toog ba 4 heures matin. bu dee laa ilaaha illallaah ji tàmbali laa moo tàmbale. moom mën naa fee sëriñ bi nee na mën na fee ne ba 4 heures du matin. sëriñ bi dañoo bëgg nga dallu. xaw ma nag sëriñ bi yow dañoo bëgg nga dallu nee na xamul nag gaa yi. dañoo bëgg nga dallu Mbàkke. laa ilaaha illaa ji moom. dañoo mu dallu. sëriñ bi day day nekk ak moom fii di nekk ak moom ci biir kon nañu bàyyi sëriñ bi dallu.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

لا إله إلا الله لا إله إلا الله ارحمني بها دنيا وأخرى لا إله إلا الله إله كل شيء لا إله إلا الله لقيني بها كلمة الشهادة لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله إله كل شيء لا إله إلا الله لقيني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 مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما وخديمه وسلم تسليما ألف لام ميم إنما سبيل ولا تجادل الله الله الله الله من كل كريم أكرمه من أمهم خاد له تكرمه أسلم لهم كل كريماني ولا اسم لسان لرحمن وجه شكر بلا كفران tubay sabo manirani tubay sabo manirani amina ya rabbal alamin bismillahi rahmani rahim wajjahtu kulliya za qurbin min allahi khillan wa hibban wa za sawqan ila allahi allahu akbar allahu akbaru allahu akbaru mimma kuntu afaluhu wala sasa wala arju si wallahi zikri wa sukri wa ridwani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wa kalami lillahi kulli li rabbi fi sirrin wa fi alanin wa lastu asalu khayra nafillahi radditu an nafin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 الذي خزان خدمه مع البقاء وقيل الله لله لو سكور وامدلال وله كل يتيم شرم ربك كل الله والكريم الذي لي خالد رحمة ما اختر لي عنده في الأمر الله فاسد كلامي بذكر الله مسمن وفاز كل في دار والله يقدر الله في دار المتدين عن المراد خوض الباسط الله أبناء خلوتهم بلا توجيه أبدا إلى جهته سأجر لدى الله يدي وقلبي لو هبدا لو بردا سا خدمة لرسول الله بالله يا ربي yàlla barki borom Tuuba barki maam Cheikh Ibrahima Fall barki maam Cheikh Mbaye barki Cheikh Abdoul Khadar barki seen nurul Alxuraan barki Seydina Mukarram la ilaha illallah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 إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله صلى الله سيدنا مكرم comme mbokki taalibe yi fi njëkk a jaar rek ñëw nañ ci turu yàlla wi te fu ne laa ilaaha illallah ni muhammadu rasulullah kon dañuy barke loolu kàtt rek ci muhammadu rasulullah ci barzan bi fu waay nekk rek toog rek nga jàpp ci aw bi ngir jëmmi seydinaa mukarram déglul moox la fa leer ak Moustapha doxa dox caa wala fil kaw bur yàlla bind na leer ak te bindul fil mulki wal malakotin daa leeram oh. nga jiitu na leeri téeméeri junni ba muy téeméeri junni ba muy ay junni yàllaahu leeram nga jaamu na leerug yàlla ay million lu xel dajul nopp e gul foofa yàllaahu bur yàlla sàkkal ko ay kiraa yi leer yu ko wër yu mat fukk ak yu tal ñuy diili yàlla kiiraay lu ne mu sax fay jaamu ay ati at kiiraay lu ñëw gana tallam weesu yàllaahu yone ma la moom ci danaa la ko wax ak ture yonen jaamu foofa yàllaahu suural amina maha lamina ji وهري فوحل آمينا آمينا سخبام بايالا من يبقى وجدين سنم كرم أنا لخو تكاو يمغل كو وهري نيسان bi fawqal baxri na yàllaaw yonan ba xus na ca géej ya tey danaa la ko wax juróom ñett lanu fir barxi ni ndaw leer ci kaw leer ba leer ak Moustapha ga dugge ci géej gi leer yi nga neelil yàlla yàllaaw nuuru ala nuuri min nuuri yu nawiruna min nuuri min nuurihi anwaaru yàllaaw fi baxri nadratihi fi baxri rahmatihi ku sopp seydina mukarram kay yàlla na la fay Musa mu njëkk ma fay Musa mu mujj mi fay mbooloo ma yàlla dal di melax te fekkoon moo doon fukke lu doom yaay la bay dam faati yàlla na ngay maam bay mukaramu yàlla na ngay maam sama kër ndeysaan lay jaare ndax maa gën a yay ci gën gu mel ni rasulallah alaay lay suural amina suural amina maha amina ji waxar waxar ma far ci maamu koor lii la mawlid wax fa yàlla keroog jigéenu xurey si ñëpp dan ni tasax ñee wopp ñee faatu ngir xemem ko yàlla keroog ku nay na taxaw naa faatu ngir ku bëggoon leerug Muhammadu Abdullahi yàlla mas naa dikkal baayam ba ci jox ko junni buruk diggante xaalis ak urus ak jamaaya yàlla ndey bisi bisi di jooy di xemem taar ba naan ko sarax way jël ma way jël guddi keroog la waajal soxna Aminatu jébbal ko sangam bamba abdullahi yàllaaw keroog la ajjana waaj ni jànq salla mu am duniya ndox mépp sas lem wóor na yàlla jërëjëf Seydina Mukarram yàlla na fi yàgg lool te bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما تجرب القلم والمداد لتجديد ديني سي الأمداد تجرب القلم والمداد للتجديد ديني ذي الأمداد الحلم نافع إلا يقاد ربي توحيدا وحنرد ربي لن عيدا إلي قاد ربي توحيدا وعن رداء ربي لن عيدا لي جاد محدودي بتوفقين والله ربي عالي مفقين هبادة أحسن عاق السبف وأن أحداي سوايا خوف لي كتاب الله ربي صلبات ومن سوايا أبدا لن يصلبات مد إلى كليتي عديسا من قادني طويلا وتحديثا إلا يقال الفؤاد نحو والعرود من لفؤادي صلب الخريدا لسلب البيان والبديع مع المعاني من عدا بديع نفس علي منطق والوصول من قادني حرفان والوصول أن تقني من صلب لسانا لي كما صلبني الإنسان أن تقني من صلب لسانا لي كما صلبني الإنسان فرط منافع الحلوم بنصوص لي بسروي ولي خير اللصوص علمني في خيبتي تميدا من قادني وعن علا عيدا علمني في خيبتي توحيدا من قادني وعن علا عيدا علمني في خيبتي توحيدا من قادني وعن علا عيدا نصر من الله وفتن قريب وبسر المؤمنين نفى المفاسد مع مع المكاره إلى سواي مكرم بجاري نفى المفاسد مع المكاره إلى سواي مكرم لجاري صلى وسلم على في جند الحماة نحم الله ربي في القت وفي التلاوات ربحا يجر بر والعلاوات مني لله ولرسوله ولسوي الإسلام الإسلام والقبول نفعني نافع نفعا جسبا لي قلب كل فايز فانجسبا أن الباقي لدي ولدا خير الورى ما ليس فالخلدان إنسان سكري بعد السكر عامدا بلا انتهاء سابقا خالدا لوجه النافع ما توجه ليردا ولصفاء وجهان عدية من المكرم الكريم لأبدا خير الذي استرى العليم ودعني كل لياد لم يكن من الذي لقروا لا بكم فرق بيني وبين السر من كان لي في البر ثم البحر تنمو بصارات به وأجري وسنني عن الأسى والهجر هب النبي المنتخى نور المدر كرمنا بسرا للبت وعدر قد قوت لي منك أجر سافية وللجنان لا ثمن عافيا رافع صليا صلاة رافعين على المبر سلعدى والنافعين يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفي سلواي أحمدا بحق وجه الله ورحماني في الخلق وأمر وأزماني بحق وجهك الكريم وسعي لي ممري ودوري تسعي سعيد صلي بالسلام الفاضل على الذي سميت بفاضل رددتني ربي إلى المذاكر وليرط ربي كل كافر الله ربي وولي علي أبدا عصمني من كل من تمردا لسحت بأني قد جعلت نفسي لك وديعة فككت عبتي ملتسما بالله ولرسوله صل علي ولتسق لمامول وجه المنام وقود مثل كل باب سعادة لديك مسلم من الثواب وأجور والأمان وليعب منك بسارات الزمن نادي وصلي أبدا وسلمين على نسيب بصره كل مسلمين يا فاتحة بصر بالجنان صلي على مطار الجنان نافعة لي مسلم ومسلمة عاصمة من مجرم ومجرمان بلا آفة ولا كدر فيه ولا بيني وبين أحد أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Cheikh Aïdara Mbacke yal na fi yàgg loolu te barke borom Tuuba wali rasuli isa daakum li ma kon ñi wuy ci yàlla bi bëgg nañoo dund bëgg nañoo dund ndax istajibu lillahi wa li rasulihi isa daakum kon ñu wuy ci woote bi yépp dañoo bëgg ku leen dundal ci seen borom temps dafa nekk lu seer temps dafa nekk lu jafe te yàlla bi mu ñu indee ku ci nekk dalaa jox ay waxtu waxtu yi mu ràbbe ko ak i minute minute yi mu ràbbe ko ak i seconde seconde yi mu ràbbe ko ak i jaas ku nekk war a ñëw ci àddina def fi benn laps de temps ñun ñëpp yàlla jëlee ci faniya waaye moo ñu jëlee ci adam indi ñu ci wujud waaye sunu wujud dafay fekk wujudam nga xam ne ñun ñëpp ci kainaat yi lañ bokk. waaye alkaaidu nekk ci boppam toogee maqaamam ak darajaam ak martaba waaye wax naa ne même ñu koy natt ci ne sax daa toog ci ab toogu wax naa ne yàlla du nekk mahmul waaye déggin la rek arrahmanu al al arsh borom xam-xam sax dana ne laaj bi bidaa yooyu nag ay sew-sew la ñi nga xam ni seen borooma leen tax a jub mu nekk yitte ci ñoom sëñ Tuubaa moom ni mu mel ci yàlla ak ni mu ci màndee ak ni mu koy solee nit ñi kenn melut ni sëñ Tuubaa ci yàlla déedéet loolu kay xanaa dangay ngay dàq kuréelu yonent yi ñu génn waaye boo dàqaatee ku génn ku ne Cheikhul Khadim lay doon ku'usuka tasxiini moom naan benn benn kii de ku'usuka tasxiini bihaa saabu saara waaye yëmu ca wali xutta faydan danga maa jox kaas yi ma di ko naan te taxuma man di wali xutta faydan nga indil ma naanukaay ba bëgg ma ko indilee nag axjalal bahla bahra wal fulka xam nga géej ak i vaggam walla géej ak ya cay daw loolu ay maqam ak jalal baxara gaa ya am ak fees ba defee ne ay géej la ñu ñoom wala ña yàgg ci géej ba jaxasoo géej bañ di leen jaawale wala seenu takkoo géej tax ñoom ñu mujj sax defee ne géej lañu ñooñu ci kaw daraja boo leen ca nattee Sëñ Tuubaa nee na faydu bi ma yàlla jox ma di ko jox nit ñi ak jalal bahara wal fulka maam góor yàlla yi seen naanuwaay yi yor bi ma yàlla jox da ko gàccaar ak jalal bahara wal fulka léeg-léeg sax mu wal wabla maam ni mu nawet def ci gàncax nga xam ne bu ndox mi tuuroo rek inaa sababnal maa sabba summa shaqaqnal arda shaqa fa ambatna fiha habba wa anaban wa qadban wa saytunan wa naxla léegi nag wal wablaa moom foo ko déggee rek mooy nawet bi bu tuuroo effet bi muy def ci gàncax gi pour jug sëñ Tuubaa nee na naan waay bi ma yàlla jox ni nawet di def ci suuf di ko saxal meññeef ni may def ci ruuxu jaam yi di leen maraleeg yàlla ko raw dama koy faral jox gars yi ñuy ma ne ay nanditi rek a fii nekk wala ngaak ñi yàlla dimbali ci boppam wax naa ne ñooñu moom bu yàlla ne zahir la ñooñu ñëw moom loolu ñi nga xam ne dañ leen kaste rek ndax seeni seen xol dafa am ay axfaal afala yatadabbaruuna alqurana am ala qulubihim axfaaluha mu ne dañ dul settantal wala dañoo kastre seen xol yi ñu ngi kastare seen xol nag ba amuñu alfutuhaatu rabbaani yi ñooñu seen jëmmi bopp yàlla baatin la ci ñoom yàlla daal nëbbu ci ñoom ñi fexe nag ba yàlla nëbbu ci ñoom ñooñu ay silmaxa lañu donte ay bët lañu yor laa taamal absaar walakin taamal quluubu lati fi ñoo ñu gumba wuñ gumba bopp waaye gumba xol lañ gumba te nag borom bi nee na ñi gumba fii ba gisuñu ba boo léegi tamit ay gumba la doon kon wujuhun yawmaidin naadira ila rabbiha naasira ñooñu dañuy janoog moom bokkut ak kallaa innahum an rabbi yawmaidin la mahjubuuna dañoo am ay xijaab kon nag nanu farlu kon huwa al wal axir wa daahir wal baatin daahir ak baatin aarif beeg am bi ñoo ko bokk saahir si ah aarif bee moom moom yàlla saahir la ci moom yàlla nëbbootut ci moom ñun nag bu ñu ne yàlla rek ñun jël nañ ko ba kassare ko ba tëj ko ci benn néeg te yàlla boo koy tëj fu muy dugg fu xaj yàlla lu koy mëdd yàlla lu koy nëbb yàlla lu koy yiir nit lañu mëdd moom lañu ñu nëbb moom la ñu yiir li fekk nag génnul ci nen boobu ba xam li xew ci addina bi moom ne même cuuj bi ci cuuj bi ci biir nen bay yem rek nday ji nekkul bax jub mais cuuj bay max jub bu nen bay nee tàcce nag ba cuuj bi génn ci aalamu shahada moom léegi génn na ci fi nekkoon kon ci mm-hmm. ci xaybu mm-hmm. kumpa gi mu nekkoon réere li ci biir kon nit mooy mahjub waaye yàlla du mahjub du maxsuur du mahmul du mahdud wala nag lu mat a xam la kon aarifu ne ñoom yàlla zahir la ci ñoom ami nag yàlla baatin la ci ñoom ndax ñooñu mazahir yi def leen a nëbb zahirullahi yàlla moom daa feeñ waaye mazahir yi nag mooy yàlla feeñal yàlla day def retour fii ci ay ma yàlla zahir la moo fi ne ak i mazahiram ak i tay tajalliyaat yi ak zuhuru tajalliyaat yi non da ngay wax yi ak zuhuru tajalliyaat yi kii def tajalli bi kooku mooy yàlla bi xeer yu demee ba dal ci kaas bi ba nga dégg kan loolu suhuru dal gi xeer wi dal ci kaas bi la moo waral bruit boobu léegi nag des fois bruit bi dana la empêcher yow ba teewlu gi nga waroon nag teewlu xeer wi dal gi muy dal ci kaas bi doo doo doo ko teewlu bi max naa di fuglu feeñu bindeef yi ba feeñuk bi mbindeef yi nëbbu la feeñuk yàlla mi wax ne man damaa feeñ yàlla kenn tuumaalu moo ne awwal la axir la zahir la wëlbatiku ne batin la kon bi mu nee zahir la ni yàlla may ñu ñu am ku leen détecté ñu am ay détecteur ñooñu ñoom dañuy waaw ñii <laughs> ñi ñamut ku leen détecté nag ñooñu ba tey ñu ngi ci ndambali rek ba tey kenn tojalu leen ko rek bu ko dee dañuy wiiri wiiri ko xiin xiini rek loolu loo rek la loo rek la loo rek la waaye li gën a am solo moom lay wax dama am mbokkum taalibe mu indi benn arif bi boo xam ne daa xaw a yëngu ma di ko dolli maarifatu billahi bu nekkee ci yow nga def sayru def yi nga war a def yépp ñu awale la fi la war a awale nga xam awalim yaag xaqaayiq yaag xadaraat yaag lu nekk nga mos ca la nga ca war a mos kooku sëñ bi dangay ngay jógee ci ci faniya da ngay jógee ci faniya nag ndax fanaa du nekk sa xaaya sulaar chaque jour ci baar bi mandi kooku boo ko yóbboo police kenn du ko entendre ndax lisitut mais am na ñooñ yàgg giñ yàgg a naan tax na ñoom dañuy dem ba yàgg liñ daan dajeeg yow di ko naan dañu koy naan te duutuñu mandi ñooñu buñ saaga procureur dañ leen entendre directement c'est parce naan nañ ba ñi li ñuy naan mais dañoo licite mais am na ñoo xam ne ba léegi liñ doon naan moom mi ngi leen di màndal ñoom guñ koo résister léegi nag xaalul fanaa boobu ngay ne lu nekk yow sa xaaya parce que di ko traversé nag ba dem ci xaalul baqa ndax léegi dangay ngay def yow sayru ilallahi foofu nag li nga fi gis yëpp lu ci nekk mën na laa yóbbu jës la boo defee nag gaa yi jekki-jekki rek rayon magnétique yi di leen num tuddati ku ci nekk ak ni mu koy yëgeeg ni mu koy dundee waaye nag sayru yi day dem ba mu yàgg mu dog di dox di dox di dox sayru ilallah mooy lan dox jëm ci yàlla kay fa est-ce que dox jëm ci yàlla tànk nga koy defee ndax dangay ngay ndax dangay naaw kon lii dox jëm ci yàlla aarif bi soobu tariqa wax ne moom moo sóobu yoonu tasawuf dafa war a xam kon dox boobu doxub lu muy doon waaye boo ñëwee rek eh, ñu ne nangam tayru nangam nangam rek nga ne mokkal sa théorie te defoo ci dara dikkiroo defoo fikru defoo dara dangay ngay jekki-jekki rek dégg waxtaanu jàmbur rek nett yooyu am ñu mel noonu ne sayru ilallah boobu nag bu demee ba ne kettet dagg yow sa sayru ilallah jeex na est-ce que sayru ilallah yi bu jeexee léegi dafay nekk sa xaaya déedéet léegi nag ubbiwaat nañ beneen bunt muy sayru fillaahi dox jëm ci yàlla boo xasee ba yegg ci yàlla dox ci yàlla moo des dox ci yàlla nag dañu ne laa yantahi moo tax góor yàlla yi ba tey dañuy jël ndonoy yonent yi tilka rusulu faddal naa baaduhum ala baadi ak war afaanaa baaduhum fawqa baadi darajat bu ko defee kon nu gën a farlu xam ni sëriñ bi mën na laa tarbiyee woo la ci yoonu yàlla jëmee la ca waaye nag itte sax boo ko amee man ngaa romb sa sëriñ waaw déet boo amee te romb dox jëm ci yàlla kooku moom mën ngeen ciy nekk di eh, kiyeen teeg num sëñ bi moom def sayru ilallahi am ba yàgg ba yegg léegi na nga ne ci yoon wi mu di la orienté waaye sayru fillahi moom géej la goo xam ne moom sëñ bi sawar rek ak mën a féey rek moo taxit ku ci yor ab taalibe mosal ko ko mu mos ko di dox boo taxawee fiw la lay def toog boo yàgg kii ah, ah, ah. noo koy defee nan te pare bëgg ko defaat ngaa ka te koo ubbi ci yàlla yaa ko def nandte koo ubbi ci yàlla rek yaa ko yee koo nelawal nelawal nga ko waaye koo yee yee nga ko munoo yee nit ba noppi wëlbati ko di ko nelawal mënta nekk loolu moo xam-xam ñu ne ci këy waaye ci dund góor ñi lay ñëw waaye seexul mu rabbi bu mat seexul mu rabbi dëkk moo koy def ci dund góor ko def ci dañuy màcc li nga sant ba gëm ay murid gën dañuy tuus xasida dañuy jàng faral waaye ba tey xam ne mooy xool xool yi xam-xam yi nga xam ne moom la sëñ bi wax di misaal nag yàlla ko wóor ñu ñu xam daal. Xudaat alayhi salaatu wa salaam wala boog Moussa alayhi salaatu wa salaam la taxoon mu toppoon la taxoon suñu borom boole ko woon nga Xudaat abdan min ibaadina jaam la ci sama biir jaam waaye lan la uti ñoom. aataynaahu rahmatan min indinaa wa haramnaahu min ad-dunyaa ajran. ilmu lu ñu borom laajte nga mu xamal. wér ñu mën a jàpp jàmm. maanaam dox ak moom ci. ilallah mu ne woon màcc. jaarale ko fu góor di jaarale góor. nan la ko ci maawul xayaat maawul xayib maawul kawsar ak maamul salsa bi di ngay xamal jàmm sax dañuy ci des du nga ko waxtaanee yóbbu leen ba sës rek ci seen borom ñu xam ko ci biir xam ko ci biti xam ko ci saahir xam ko ci bàcc. ba mboolem loo xam te ni dafa newoon maanaam xëy bu ci ñoom muy muy muy muy lu nit mën ko gis wala lu nit a teg mu doon gis ko bu kon ñun lu ñu sant Mbàkke doyul moo tax ma ko dañuy sant rek te lu sant doyul Mbàkke li xamal ab jaam mu di ko xam koo ko xamal mu toog ci kenn wallahi al azim dagal na ci moom dagal na ci moom ndax baat bi ñu jox daa xaw am na ñoom dañ la koy jox ci tibb yi kese waaye xam ko dëgg dëgg xam xam jaam ci tibb boppam maanaam ci jaar waa lan war a jaar ba war a doon dëgg dëgg insaan kaamil foofu ñuy xufu ñun te jamono bii murit boo ko waxtaanee. ñu moom ndax murit boo ko waxtaanal ñu ne ndax moom kii murit la te sëriñ bi moo ñu xamaloon baa ma fa kuréel bi si tëgg di xaale xii fan naa moo fi léegi bi a laaj bu ko ne lan mënoon nañoo bañ a xam loolu di dox ci maarifa falsafa wala kon nag ay dof dajewuñ fi waaye ki nga yeeg ci boroomam ba mu xam fi boroomam doon ci moom ba xam fi nga nekk ci moom danaa xam ne yow boroom nga man dafa ñu man xulóo ma ay jaay parce que maam ñaa ko def la dañ koy wax xulóo ma dem nañ dimb nañ nañ nañ nañ yi yërëm leen ibaadu yi nañ yërëm ibaadu yi bala ñoo dee dañuy dee loolu fajul seen bopp sax dañ da leen da nga di rey yaa ñu woon fi yàlla nekk ci ñun xam nga yow li ngay waxee sayfun saarim la ala riqabi aada illah ñi réere ngay wax day nekk jaasi ñuy dog seen noos yi waaye dañ yërëm gaa yooyu suñu mbokki waxaab yi dinañ leen yërëm addina booba yàlla tëlewul dara ndax ginnaaw yonent yi jiitu woon yonent bi ñoom wàcc nañu liggéey bu yàgg yonent bi doo ko ganee jamono yàlla riñaane ko mu ji dajeek ñoom baytul maqadis jiitu leenu julli foofu julli waa barsàq la ak waa addina kon yàlla mi def loolu dara tewu ko gis nga bu doon ne dangeen a daje nii rek te bakkan dajale leen mu leer nañu ne ñiy wax fii ci yàlla jigéen ñii ci jataay bi xam nañ ci ñoom musiba woo xam ne jataay bi dong nga tax ku nekk ñu sàng ko mbalalum sutura waaye jigéen ñi mën a tànn imaam nekk nii ci kuréel gi bu fekkoon ne ay moykat yàlla fi daje wala kenn ku ci nekk di wut koy message anteel ak koy envoyé teel ay vocal mm-hmm. su ngeen fi dajee di wax da ngeen gëmante ñaar ak ñett waaye jigéen ñi ñoo leen weddi gis nga boo bëggee jël sufiyanke bi su moytoo caaxaan moytu mooy yàlla moytu naan sàngara moytu njaalo moytu lekk riba moytu fen sëñ bi dégg naa waa ji si kër ba yàgg mu ne góor bu màndoo day sori ma ne aka wax lu xóot ku maandu sori. ginnaaw dox bi du doxub tànk doxub ruux la booy maandu di sori. doxub tànk moom lañ naan fii ak Thiès nga naan danaa ko def deux heures de temps trois heures de temps waaye nit dis ki di dawee ba mën a dagg moroomu weñam nit ki buy dox ci boromam sayroom moo gën a gaaw loolu nga xam ne dix mille tour walla vingt mille tours par seconde disque bi dana ko def doo ko dagg moroomu weñam ruux gën naa gën a gën naa gën a gaawee noonu ab tànk moo tax sayru la ay tànk taxu koo jóg xol la ak xel ànd ak sa ruux nga teewlu sa borom di dox nag te jigéen ñi nga xam ne am na ñoo xam ne jot nañoo am lu mat vingt ans xanaa ci daara ji ñu ngi fi ku fi nekkoon jubali mbaa nga doon mooy katul yàlla buñ ko waxul léegi buñ génnee na moo du tus du tus ji rek dañuy jàllale Mbacke. waaw maa ngi nii jëlu ma fekk jubluwuma. waaw waaye xalaat bi ma lay xalaat rek maa ngi def ko yóbbu ma ko yëg. parce que ginnaaw bi. loolu lépp taw faa. ñoo dajeeg yow fekk suñu xol bi yëg yàlla. tabaarakallah. ñoo waxtaanee yow fekk suñu xol bi yëg yàlla. tabaarakallah. parce que bu ñoo toog fa ñuy wax dañuy toggee di xalaat suñu ay dara te suñu xol bi yëg yàlla. tabaarakallah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu la Cheikhul Murabbi di jariñ maanaam sëñ bi dane ko amul cheikh cheikhul mursid bu la xamalul yàlla doonatu sëriñ Thiaw mais cheytaan la ci yow ndax xisbullah rek moom ay xisbu seytaan kon ku dajale kuréel te te teete leen wan leen seen borom jëmee leen ci ci seen bakkan seen bànneex rek nga leen jëmee nii mbooloo mi demee kat ak xel mi nu yàlla dimbalee bu doon ne wax ak yéen ci xew waaw mbooloo mi day gën di yaatu bi ndax jigéen ñi ak gone yi niñ bëggee mbuux ak fopp bu doon ne ci mbuux la ñu wooteeg fopp kenn waxatul téeméeri at kenn ci biir mbooloo mi bu mën a jóg joxañ la baaraam ne ba ma waxee ñàkk fay dagee mbaa baa ko gisee ci yow lépp ñaar fukki am na fi ñoo xam ne fii maa leen tudd maa leen maa leen tudd yaa leen maye. maa leen tudd maye leen ñu amaat doom ma tudd ko. am naa ciy sët kon ci gàttal. te yàgg dara la. man sama jëmm waaye jëwriñ yi képp képp ku ci nekkoon ci loo wër nekk. ne ci biir daara ji ni faroon teeka njaaloo ko def naka sudul noonu courant bi du am yàlla da ful da koy dagg foo dégg yàlla di fa ngir bañ ko la xisaab tam defar la ci axsana taqwim laqad xalaqna al insana fi axsani taqwimin waaye summa radadnaahu asfala safilin kon nag li ma leen daan wax ci université yi di leen wax ci jataay yi di leen wax ci école yi ana al awaan ana al awaan ana al awaan li nujaddida al himam li ila ma kaana alayhi salafuna saalih min axlaaqin xamida wa mahadu lana tariq wa dalluna ala alxayr il est l'heure ñu dellu ci yittey mag ñi fii may waxee yow yittey mag ñi ku ci nekkul sax da ngay mujj soof sa bopp te ku moytuwul kalaas yi ak raas raas kalaas raasante kalaas yi ak jataay yi da ngay tardé ndax boo xoolee nun ñii toog kër yi ñu dëkk léegi génération yi mu fa nekkal ay mag fa ne ak i màgget xarnu bii ñu ne fi mu toll nun nooy maggi xarnu bi ñeneen ñi def ay kilifa fi mu toll te di leen bàyyi xel ñoo ñooy màggati xarnu bi mm-hmm. te màggat day gunge màgga ciy topp fu mag ñëwee rek ndaw ndaw a ngi ci ginnaaw ginnaaw mag kañ doon mag day jógee ci mag ñëw ci màgget kañ doon wax ndaw ñëw palaasu mag xarnu bii ñu nekk ay màggat ak mag rek fi nekk nun ñi doon magi bii xarnu nag bu ñu amul fulla ak fayda ci jël sunub yan duñ def lu dul jamono ji paase te duñ ko yëg mhm. jamono ji di paase te duñ ko yëg te seytaane ne woon na yàlla danaa gàllankoor gaa yi de gala jaane yoon bi waaye suñ borom ne ko ba mu def sama jaam yi yi de ñooñu mënoo ci ñoom dara de bu fekkee amoo fulla moo fayda série télé yi ñoo lay tëj doo dem boo amut fulla Facebook bee lay tëj mooy tee nga def lu baax boo amut fulla TikTok bee lay tëj man fi ndool yooyu yëpp laay seetaan waaye damay def li ma war a def sama digg ak sama borom ba noppi dem seetaan lu tax loolu dama war di yedd ak a yar ak a yeete mm-hmm. su fekkee ki may yedd ak a yar ak a yee moo ma gën a yeew lu ma koy yee loo xam dama koy xam boo ñëwee bala nga ma euh, taf yëngal du sotti hmm? boo waxee rek bala nga yeggal ma wax la li nga bëgg a wax lu mu doon dama toog France ay tubaab ñëw xam nga Souley moom daa bari àll bëgg a wodduloo tubaab yépp ci saase bëgg leen a muur ci saase ma ne ko jëru ko bàyyi leen ñu ñëw ak seen yu gàtt mu ne de sëñ bi bëgg naa di <laughs> wut ay sër ci saase ko woddu leen waaye ñëwut sër sama bëgg a jël ay dara yi ni ci nekk kër gi woddu leen ci ma ne ko jëru ko bàyyi leen seen yu gàtt ñu ñëw bi may wàcc ci aéroport maa ngi koy gis bi ma demee ci gaar yi maa ngi koy gis su ma duggee ci oto yi maa ngi koy gis kon ñii doo ñëw ne duma ma ñoom ndax nii ñu mel bala nga leen a yeddee ñi nu mel da fexe ba defar leen bañ doon ki nga doon ndax faaw nga doon ak jullit jëkk ki doonub jullit moom lañ naan ko lan mooy awra soo xasee doon jullit ci ci ci ngay xam lan mooy sa lan mooy awra waaye ñi réer moom ulaayika kal ne ko pédagogue moo tax ba ci sama daara ji sax bari na ñoom dañu ko daan ragal.